syndicat des travailleurs routiers du Sénégal affilié au fofé ci CNTS ci njital Alassane Doy nek maire bu Diender nek président bile syndicat mom ak ay ñoñam ñoo doon amal taxaw setlu jëmele ko nak ci doxalinu bile syndicat ak ko yeen ca nemeku gannaaw bu ñu joggé ci grève bu metté metti bu yëngaloon réew mi lool ñom dañoo japp né lolé dafa tiitaloon nguur gi ba mu jog taxaw temm ngir xaajale leen ndax japp nañu né tank ñom ñu ngi bolo di nek benn lu nu sumb dana nu ko daan te loolu du arrangé benn yoon état moo waral li ni mel. venant transport am na benn activité bu ñu fi def yàggul muy grève yaakaar naa grève boobu kenn mësul gis grève bu lu mel li taxoon nag mu am loolu laa bëgg a leeral ak li nga xam ne moo xewaat après loolu. amoon cadre unitaire boo xamante ne bii fukki syndicat ak ñaar ñoo ko defoon ba ñu gis résultat yi mu def ci transport. waaye loolu nga xamante ni moom la defoon arrangé wul état bi comme arrangé wu ko nag foog mu jóg ak pexe pour yàq loolu waaye nag dafa mel ni siid na man jàppoon naa ni sëriñu état jàppatuñu waaye ba léegi bàyyiwuñu ndax bi ñu defee grève bi man li may wax ay preuve yu leer laa ci am bu ñu doon wër Sénégal dañ doon wax Alassane Ndoye moo jiite cadre bi fu ñu dem loolu la ñuy wax. C'est bi que nous état bi Nous avons def arrangé wu commencé juste que ñu nous askanu Sénégal que nous ñun transport de manière générale loolu moo Nous intéressé ñun ñàkk ñu nous état mais ci dëgg nous avons ak état état mais état dafa def jeu dafa gis ni grève bi ñu cadre un ko 12 secrétaires général Nous réussir ñu total mu équipe qui ligue gagné gagné la ligue des champions Europa League gagné gagné coupe du monde Nous, avons équipe bi dafa l'État. arrangé wul état mu dugg cadre bi lu de Nous avons am gagné Nous, cadre bi diviser nous ñoo diviser pour vous dire Nous ñuy diviser nous élection mu ngi Nous ñu am lu Nous pour am ñu Nous ak cadre bi Nous Nous pour ak état Nous sax pour vous dire que nous dañuy tourner ci tournée ci région yi dañuy dem ci gros porteur Je dañuy dem en tant que gros porteur en tant que syndicat nous porteur an cadre bi fait ñuy nous lépp rôle la ak ay tappale yoo xamante ni nii loxo état moo nekk ci biir. ñoom ñi bootu ci bile cadre nag la ñu fësal mooy am nañu ay firnde yu leer naññ yuy wane ne nguurug Sénégal moo taxaw temm ngir tas bile cadre jaxase leen féewale leen dox seen diggante ba dootuñu mënatee booloo nekk benn ndax ñoom jàpp nañu ne saa yu ñu booloo nekk benn rek état bi du leen mënal dara. te lu nu sumb danañu ko daan li ni mel nag moo tiital état moo waral mu duggal ca loxom ngir tasaare leen ba mën a dox li mu bëgg a dox def li mu bëgg a def te kenn du ci man dara. te loolu may wax preuve yu leer laa si am parce que dafa am benn kilifa si état bi moo woo benn nit si ñun man na maa wax turam waaye buñ ci yeggoon tey ma ni diw la mu ni ko dama bëgg ngeen tàggoo ak Alassane mu ni ko lu mu ñu def. mu ni ko daal Alassane dafa contre état bi kon dañu bëgg ngeen bàyyi ko kooku moo ko wax si pleine réunion ñëpp di dégg mu ni ko waaw est-ce que loolu man rek nga ko wax ndax doo ko wax ku ñu wax Papis Touré sa Casamance mu ni ko du ma ko ko wax parce que kooku nitu Alassane Ndoye la kon kooku dafa fidèle léegi nag loolu nga xamante ni moom la waxoon kooku ba mu jàllale ko ci réunion autorité boobu loolu la def si cadre bi yëpp ba tax nag ñu ni léegi nañu génné Alassane doy fal kenen, parce que xejna koko ñuy fal mom luñ ko sant mu def waye Alassane doy kenn mënu ko sant lo xam du yoon mu def ko ndax ragal la lool nak la bëgg léral askan wi créé nañu cadre bi nak ñom seen cadre waye cadre bi bi demoon grève cadre bi ba légui ni mo fi nekk ku si génn ya ci génn da waxon na leen ni ku génn si cadre bi dé waye yaakaar na ni ñom ñoo ñu génn dinañu dé kon nak ñu léral leen ni cadre baa ngi fi mu nekkoon waaye ñoo ñu génn ñu ngi waaj a tourné nag pour ci régions yi waaye na ngeen xam bu ñu ñëwee nangeen leen di recevoir ak ñu ngeen di recevoir ñooy kan. te ni Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk mais gis nga transport c'est pour nous bu mu déglu ñenn ñi bu mu déglu ñenn ñi te bu mu ko buñ ko yàqal avenir am man xam naa ko bu baax ñoo dëkkandoo Guédiawaye mais li wérte woor mooy fii mu fi ñu ko bëgg a jëmloo foofu baaxul baaxul ci état bi. kon li ñu leen di xamal mooy cadre bu fi nekkoon moo fi nekk mais ñi nga xamante ni dañu bëgg a jaay chauffeur yi ak askan wi nga xam ne dañ leen a bëgg a jaay comme ni mu demee woon ci grève bu njëkk ba ñooñu noonu nag ñoo continuer seen combat ba léegi ma koy xamal chauffeur yi Sénégal yëpp ak transporteur yi senegal yëpp ak ku yëngatu ni ñoo ñu jóg ni ci cadre bi la ñu nekk ba tey nii génnuñu cadre bi ay tappale ak ay sos provocation ak seen poos si bopp moo leen tax a jóg. moom njiital bi les cadres ñu gën ko xam ci Alassane Ndoye joxoñ na baaraamu tuuma njiitum réewum Sénégal di son excellence monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall waaye ak kii di préfet bu Pikine ndax ñoom la ñu jàpp mooy ñoom képp ñoo bëgg a jaxase transport bi. problème yi nga xam ne nii bile secteur mu ngi koy amee tukkeewut ci ñenn ñu dul ñoom te buñ ci raxasoon seeni loxo ba mu set wecc bile secteur dana jubbantiku ba ne cocc. gis ngeen démb li président de la république def muy Macky Sall lolu moy jaxé transport ak préfet bu Pékin ni ñu ko waxé xam nga euh, war gaynde yi nga xamni ni la ñëpp di ciow ñun suñu jabot lañ bu fekkente ni bi nak dañuy def lo xamni waru ñu ko def suñu démé su Macky Sall da leena a wax ni delu leen sa ministre du transport mu tok waxtan ak ñi di yoré transport ñu sét yeen ñi nga xam ne li ngeen di def te waru leen koo def ñu seet nañ lañ leen di uufe te ngeen bañ a yàq transport bi. waaye deful loolu def leen a woo di leen satisfaire fu ñu téye woon war gaynde mu ni dem leen ñu bàyyi ko loolu man kon moo yàq transport bi. loolu nag ñun ñii dund si transport nooy jóg jàkkaarloog moom te loolu ñu bari ñi ma wuñ ko waaye Alassane Ndoye ñi mën naa jiite loolu moom. nu ñu jàkkaarloog moom li ñu ko defoon sànq. dóor ko gerew boo xam te ne xamatul fu muy geesu ak mu jëm. loolu nag li nu ko mayoon bu nu ko ba. kon seen bi ba léegi mu ngi bi buñ man cadre bi dinaa leen woowaat ñu déposé waat ko su fekkente bi cadre bi ñëwuñu pour ñu de ànd defaat ko man Alassane Ndoye dinaa ko diriger man. ginnaaw bu ñu jógee ci ñaxtu yooyee nag mbiri permis à point yi nekkoon projet boo xam ne jiitu réew mi moo ko tegoon sur place ñoom dañoo dàq bile projet jàpp ne nekkul projet bu baax ndax nag mbir boo koy defal ay nit te associé woo leen ca woowoo leen ca boole woo leen ca. loolu day wone rek ne la nga bëgg a def daa jaarut yoon wala daa narta jub li ni mel nag moo waral ñoom ñu dàq bile projet jàpp ne permis à point du lenn lu dul xeex chauffeur te saa yu ñu ko tegee rek dina am ay gàllankoor yu baree baree bari yu mu indi ci biir réew mi loole nag ay kàddu la yu tukkee ci Alassane Ndoye nekk le syndicat des travailleurs routiers di Sénégal affilié ci CNTS. waaw xam nga code de la bu bees bi bi ñu koy tëgg. woowuñu kenn koo xamante ni kii code de la route boobu moo koy moo koy ci moom la koy appliqué. code de la route moom Sénégal yëpp lañu koy teg waaye auto transport en commun la ñu ciblé ma wax ni code la route boobu ni ñu ko tëggee ànduñu si ndax permis à point bii ñu teg tegoon nañ ko bu yàgg boo xam bi ñu koy teg fa ñu ko doon tege xamuñu woon sax li ñu doon def ci permis à point la jëm mooy bi ñuy changé permis de conduire rek keroog ba ñu koy changé benn Alassane Ndoye képp moo taxaw bañ parce que ku ñu wax Cheikh Omar Gueye boobu mooy directeur transport terrestre ni alors Macky Sall fee indi benn projet boo xamante ni bii pour ñu changé permis yi ñoom ñëpp ñu daw naan projet Macky Sall bi projet bu baax la man leen man projet bu ma xamul lu ne si biir man Alassane du ma ko accepté ana lu ma waxoon kon tey jii kenn ku si yor sa permi tey ni ñuy localiser sa numéro permis sa numéro téléphone mën nañu laa localiser si sa permis bi nga yor permis à point boobu bu ñu demoon peut bay dindi say point du ñu ñëw fa nga dëkk duñ la woo fa ñu toog la ñuy toog dindi say point te doo ko yëg loolu nag mani nañ ci taxaw permis à point jamono bi nga xamante ni bii si lañ ko war a def du jamono bii àggaguñu foofu France gi nga xam ne ñooñu sut sax fukki at ñu ngi koy def te mën gu ñoo yeggal kon ñun buñ ci dugg toppandoo sa moroom loolu rek laay avancé li si des ci réunion laa koy woo di ko wax maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm